patrimonio vendón, porque te mande, te trabe con nada mire. Sadi pocho, te cuento hombo, punzo poino. Patrimonio vendón, porque te mande, te trabe con nada mire. Baitin arobas, arobas warna kondom. Baitin arobas. Eh, baitin arobas. Eh, eh. Jay. Baitin arobas. Baytin a ngi koy kal Baytin a ngi koy kal ay ñii fu ñuy mujjee ñoom ñaar Baytin ak arobase eh eh arobase arobase daan na Baytin arobase daan na Baytin arobase ama fa Baytin ndeysaan